voilà ok yàlla baax na si kanam tuuti dinañu ñëw si yow. Mhm. donc euh, après daal di dikk ci rubrique yi nga xamante ne moo ñu fas yéene dese mais tout de suite ñu jëli santé dikk faram ko. alors comme ni leen ko Aïcha Diakhaté waxee elle va faire le round-up de l'actualité sanitaire donc il s'est passé énormément de choses entre-temps ñu bàyyi ko rek mu dikk ci euh, Aïcha alors euh, euh, Samba Ibrahima Fall li ñu mën a wax nag ci wàllu wér-gu-yaram dañu koy dooree ci la ay di ñàmbar daanaka yëkkati gën yëkkati sax ay maire yu bëri ba ci plateau télévision yeeg rajo yi ku ci nekk di joxe sa anecdote li nga joti a dund ci hôpitaux yi rawatina ci service de maternité yi ku ci ne xam ne nag fii li ci réewum Sénégal connotation bu péjoratif la ñu am rek ci ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di sage femme yi ndax jàpp nañ ne dañ leen di ñàkk kersa bu ñuy imbi maanaam bu ñuy wasin wala sax di yëkkati ay kàddu yu tegginewul comme ba nga koy defoon neexoon naag yooyu yëpp mm-hmm. yàgg nañ fi gis ñu koy tem ngir rek soññu ñi nga xam ne ñoom ñoo di sage femme ñu gën a mën a jàppale soxna yi mais li ñu nemmeeku nag mooy ne le cas de trop c'est le cas euh, astu soxna cette mm-hmm. dame là bu nga xamante ni ñëwoon na ci hôpital Ahmadou Sakhir euh, Mbaye bu Louga mm-hmm. le jour du 5 avril euh, jàpp le 7 avril ba mu décédé ñaari fan yoo xam ne nii euh, ci xayma nee nañu hospitalisé nañu ko ba commencé woon ko les ba tax mu daal di ñàkk bakkanam ci anam li nga xam ne moom moo di liñ ci mën a jàpp nag mooy ne xibaar yi mujj yi duñ ci jaaraat parce que wax nañ ci waxati wax nañ ci waxati xanaa juste rek un petit rappel mm-hmm. que Euh, verdict bi dañu koy xaar délibéré bi fekk la le 11 waaye li ñu mën a jàpp nag moom mooy nekk euh, barki Dembo Ndiaye bi ñuy wootee le le 5 mai mu tombeek sax journée internationale de la sage daanaka dafa xaw xamante ne nii euh, fësoon na trop trop ci at bi ndax le 5 mai bi ñu doon àtte ñi nga xam ne ñoo di sage yi te lañ doon sargal aussi de l'autre côté les les sages dans le monde entier mhm. fii la ci Sénégal nag ñu nemmeeku l'actualité fa rester euh, le décès d'Astou Sokhna ñu ne nag négligence la bu ñu foofulee dañu ne c'est un décès maternel évitable maanaam lu mënoon ñàkk la ndaxte euh, ñoom jàppoon nañ ne femme bi amoon na tous les papiers requis pour mën a am les soins yi nga xam ne nii moom mooy les soins normaux à ce que à ce qu'il s'agit de sa de sa santé li nga xam ne nag mun nañ ko toftal mooy ne ñu ngi xaarandigum délibéré bi mais procureur nag dana ñaari euh, femmes yi moom sa euh, six lañu kaat yi dañ leen di euh, bàyyi nañ leen bàyyi loolu la sàkku moom mooy euh, li mu rek euh, li mu rek sàkku moom procureur mooy ñu bàyyi ñeent ñi ñaar ñi ñu tëj leen un an de prison dont un mois ferme moom procureur moo ko moo ko rek waa réquisitoire am rek la en attendant ñu xaaragum lan la juge bi di décider file ki le 11 bii di ñëw ñu xool ci wànnent fan lay mujjee ki gëtam ci kaawu Astou Sokhna bu ñu jógee ci kaawu Astou soxna tamit une autre actualité aussi ba tey ci wàllu wér gu yaram am ca euh, diwaanu euh, Kaolack di hôpital régional ba muy lu yéeme yéeme ndaxte dafa am benn waajoo xam ne nee na euh, doomam dafa juddu ci hôpital ci poste de santé bu Guinguinéo ne dafa présenté woon quelques maladies nañ ko yóbbu ci hôpital ba bi mu ko yóbbee nag ci régional ba pour ñu amal ko ay soins euh, dafa rek euh, xam ne euh, kii pour hôpital médecin bu ñu fekk da ko xamle ne que xale bi dafa rek feebar feebar bu jéggi dayo kon il faudrait que ñu jéem ko faj faj bu mucc ay ayib mm-hmm. le temps que nag muy dem di tasenteer que benn aide soignant moo ko xamle ne que entre temps xale bi dafa génn àdduna maanaam dafa dee léegi nag ne ko xale bi mu ngi ci morgue bi ndekete xale bi yegg eggagul ci morgue bi mu demee ba ci morgue bi laajte bébé bi mooy bébé bu jaari sow ñu ne ko bébé bi yegg dara bébé bu jaari sow maanaam yaay ci moo tudd jaari sow ndax xale bi six jours rek la am mm-hmm. mais hôpital euh, centre bu gin gi neew la juddoo mm-hmm. ñu xam ne dafa représenté ay maladies crâniennes mu sukkandikoo sunu correspondant bi ñu dégganteel di Alhassane Ba moo ñu raconté les faits pour ñu mën ko étaler file ci plateau bi mu xamle ne nekk nag euh, xale bi bi ñu ko jëlee yóbbu ko euh, bi ñu ko moom bi mu leen jiituwee ca morgo ba ñu bër dañu yaakaar ne ci morgue ba lañ ko fekk mais Alhassane Ba nee na fekk moom ba mu ñëwee ci morgue ba fekk fa xale bi mais dafa ñëw gis kenn jël xale bi dugal ko ci keesu madaar mm-hmm. dugg ak moom ci ci morgue bi mu laaj ko bii ban la be mu ne ko bii may bébé bu jaari sow ñu indi ko teg ko bi ñu ko tegee nag ci la ko ubbee ànd ak beneen cousin am cousin am laal nub bi xale bi daal di jooy mu xam mu mel ni comme si que xale bi deewul woon bi ñu koy jëlee di ko indi ci ci ci morgue bi ci la demee nag moom daal di boole woo taskatu xibaar yi xam le ne moom day porter plainte ndaxte euh, dañu rek toppatoowul doomam wala xooluñu ko nuñ ko war a xoolee ba xam ndax médecin bi mu taseel da ko ne carrément xale biir dafa feebar mais waxu ko woon dafa dafa dee ba mu tasee kenn la bi ñoom génn nañu nee nañu que euh, ki nga xam ne moom moo di aide euh, euh, kii bi aide-soignant bi elle s'est trompée de bonne foi defewu ko ngir tayef ndax dafa yaakaaroon ne xale bi dafa dafa dafa décédé mais malheureusement l'enfant et décédé mm. malheureusement après par la suite muy samedi gi ñu génn bu fekkente ne élément bi yem na rek ñu seetaan ci quelques mots yu nga xamante ni parent bi wax na ko ngir gën a mën a leeral la situation xaw tuut rek musiba mabakumba am ndax ki la di Alassane Diallo mi ñi tàggee doomam ba yët ko kayit yuy firndeel ni gone gi génn na àdduna ca morgo ba la gisee ni doomam dese na bakkan na muy ñëwaat ci mbir mi nu mu demee. sama doom laa indi woon hôpital El Hadj Ibrahima Niass Kaolack mais xëy ci suba laa laaj médecin sama bébé nu mu def ñun sa bébé sa bébé de médecin bi ne ma bi dafa xaw a sonn bopp bi mu affaire bi ci bopp bi la nekk ci laa ñëw. bu ci kanam ma ma delluwaat ma laaj ma ñëwaat yi laaj beneen femme bi mu ne ma sa bébé bi lu la mees man mees bi def ma ne sa bébé bi kat feer bi ci bopp bi la nekk waaye mu ne ma noonu sa bébé bi kat dafa décédé ci la mu ne xaaral tuuti ma jox la certificat de décès bi dem ci morgue ba mu woo waa gars yi mu ne leen bébé bi bébé jaari sow ñëwagut fii de ñu ne xaaral ñu ngi ko indi ñu def ko ci carton ñu woo ko mu ñëw moo mu ubbi kii bi keesu ma daal bi teg liir bi kii moo ko laal nii ci dox mu yuux jooy ñu ne li nag bëri luñ koy nemmeeku ci hôpital yu ne ci réew mi tax ñuy sàkkuwaat bu baax ñi la di médecins yi ñoŋal seen i liggéey ba yu ni mel di leen bañ di dal. Sénégal tout foo dem maladie moom la ñuy jooy li ñuy jooy mooy médecins yi duñ leen toppatoo normal duñ leen faj ñu ngi ñaan yàlla ministre bi bu fekkee lii jot na ci mu def taxaw seetlu bu baax ci hôpital yi wax ak médecins yi ñi bàyyi xel maladie. jamono ji nag ñuy wax gone gi di jaari soow mu nga foofu ca hôpital El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ca service pédiatrie ngir ñu wéyal paj ba ñu tàmbali woon ci moom Kaolack Alhassane Ba gisee Gissé Walfadjri boobu la sax mujj naa décédé ndax euh, reportage yi mu ngi am ci euh, alxames gi samedi gi euh, ñaari fan lañ ci teg rek gune ko wàññeeku ci service pédiatrie bu hôpital bu Kaolack comme fàttali rek décédé gul sax mais dañu ko defaloon certificat de décès comme quoi que il faudrait ñu daal di revoir beaucoup de choses dans nos hôpitaux revoir beaucoup de choses sax ci lañuy ñuy desene ndax Salma ci bu poste de santé bu Passy tamit lu graaw moo fa amoon semaine gi nu weesu mm. bi ñuy jooy mbiru as soxna teguñ ci deux semaines Moustapha Ciss moom tamit ñàkk fa bakkenam ci anam gu euh, jéggi dayo ñuy xamle ne moom itamit dañ ko rek euh, yóbbu woon ci euh, poste de santé bu bu bu Passy ndax dafa piqué woon benn crise bu ndaw ak ay xaritam ñu leen yóbbee nag ci poste de santé bi on s'est rendu compte que le chef de poste le chef de service nekk fa maanaam le médecin chef mm-hmm. léegi nag bi mu fa nekkulee ñoom ñu jël ko ngir mën ko sauver gaaw rawale ko yóbbu ko ci benn clinique privée mais ñoom tamit ils se sont rendu ñu yeggee ci clinique privée bi c'était trop tard pour mm-hmm. mu daal di faa ñàkk bakkenam d'où la colère de ses habitants de Passy génnoon nañu sax amal ab ñaxtu bu rëy a rëy rëy ki nga xam ne moom la ñu dénk foofule hôpital ba euh, poste de santé ba di euh, médecin chef bi amul jotu ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ndax nemmeeku nañ ne saa bu ñu fa yóbbee malade duñu ko fa fekk ndax nee nañu li muy dem ay séminaire wala li muy dem ay rencontre wala li muy dem peut-être ay yenn clinique moom koo gënal foofu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di médecin askan ba fa nekk mu nekk situation bu nga xamante ni ñoom méttitu nañu ko waa askanu Passy mm-hmm. bu ñu jógee sa diwaanu Kaolack boobu ak li ko wër di centre bu euh, pays bi Euh, ñu gis ne nag am na ay yeneen i doomi aadama yoo xam ne ñu ngi dundu ay dund pa wereyaan ba tey ci wàllub euh, ci wàllub euh, faj mi ci réew Sénégal mm-hmm. ndaxte bu ñu ko xaymaa fii nii ci hôpital Dalal Jàmm rek musiba am na fi tamit ci week-end bii ñu génn mm-hmm. ci beneen cas bu nga xamante ni mën na nemmeeku ne kaaw benn femme la boo xam ne mm-hmm. mu ngi jógee ci poste de santé Cambérène 2 ñu ne dafa waroon accoucher mais ay ay mbokkam rawatina sox borom këram dafa xam ne rek vacciner ci euh, centre de santé bu Cambérène ndax dañu ne dañ ko war a amal césarienne xale bi mënul juddu mm. normalement mm. bi nga xamante ne nag euh, bëgg nañu ko euh, xale bi amal césarienne dañu rek dañ ko refere ci hôpital Dalal Jàmm mm-hmm. bi mu yegsee si Dalal Jàmm nag ànd ak borom këram ñu daal di nekk il faut ñu yéegal ko ci kaw ndax bloc bi ci kaw la nekk mm-hmm. malheureusement femme bi dugg ci ascenseur bi ascenseur bi panne mm-hmm. ça se dépanne plus de cinq minutes elle a perdu beaucoup de sang perdu des os elle a aussi perdu les os ba nga xam ne ni peut-être ànd bi wàcc na fa et malheureusement bi ñuy ubbi ascenseur ba ñuy jël chariot bi di ko yéegal ci kaw l'enfant était mort-né mhm. après nag euh, la suite également mooy ne que femme bi aussi bi ñu ñëwee wàcc wax ne que femme bi elle a perdu beaucoup de sang nañu dem euh, jëli gaaw deret parce que amul deret dañu sax wax famille bi nañu dem mhm. euh, fële nga xam ne moo di femme dem rek joxe deret ñu mën a faj sauver femme bi malheureusement aussi la femme également elle est décédée mu nekk ñaari décès yoo xam ne surtout regrettable xew ci hôpital Dalal Jàmm mais bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di ay njabootu te femme bi nee nañu ñoom négligence lañu ko jàppee ndaxte euh, beeka mu ñëw rek ñu xam ne urgence sax waroon nañu ut beneen moyen bu ñu ko yéegalee kay xaar ascenseur boo xam ne mun na pan à tout moment mm-hmm. mais l'hôpital aussi ñoom génn nañu rawatina gynécologue bi nga xam ne gisante woon na ak euh, waajur bi ba mu xamale ko dañ ko war a opérer mm-hmm. effectivement la sage-femme avait raison que dañ ko war a opérer mu xamal ko ne ko du négligence parce que c'est la première fois genre cas Jàmm ne que également bi moom moo pan te que xale bu jigéen bi ci poste de euh, centre de santé bu bu bu Cambérène di ñëw fi nga xam ne moom moo di euh, Dalal Jàmm mu fekk elle était épuisée déjà elle commençait à perdre les os elle commençait également à perdre du du sang léegi nañu déglu euh, direction bu bu hôpital bi accompagné du gynécologue pour en être beaucoup plus euh, clair sur la situation de ce qui s'est passé à Dalal Jàmm donc ñu leen di masawu te xam ne ñun tamit mbir mi métti nañu loolu cas bi nag mooy benn femme bu ñu évacué mais bi muy évacué sax dafa ñëw ci taxi te bi muy ñëw ci taxi mu ngi doon deretal ba pare bi mu egsee rek bi ñu ko xoolee ñu gis ne ne xale bi dundatul te ànd bi sax jiitu woon na nekk ci biir ci kanamu jigéen si ñu daal di koy defal échographie gis na ne effectivement xale bi dundatul te gis nañ ne tamit nekkul ci position bu baax ñu fexe ba yéegal ko biñ koy yéegal ascenseur bi taxaw na waaye li mu taxaw warul mat ëpp sax cinq minutes parce que bi ñu jógee échographie ak bu muy wasin quinze minutes la vraiment gars yi jublu nañ ci pour ubbi gaaw ascenseur bi mais comme mu ngi doon deretal xam naa loolu moo war a affolé nit yi mais deretal bi commencé woon na ko balaa muy ñëw donc bi mu wasinee ba pare am saignement saignement bi au bout de douze minutes gis nañ ko ñu daal di yóbbu bloc foofu nag ak anesthésiste yi ñu nelawal malade bi opéré ko dindi bëtitu njurukaay bi parce que loolu mooy procédure daal di koy transféré réanimation ci saa si jox ko ay poche sang defal ko bilan yëpp assisté ko def réanimation bi yëpp mais malheureusement comme dafa doon euh, saignement bi yàggoon na ci moom euh, mu amoon ay problème de coagulation su la mujjee gaañu. fii ci hôpital Dalal Jàmm ñun suñu bàkk mooy ni ñuy dalalee malade yi te fii garde yëpp dañ ko sénioriser ay médecins ak xam ñoom ñoo fi nekk di jël ay garde li ñu waroon def daal def nañ ko pour sauver malade yi mais xëy na nii la ko yàlla bëggee donc ñu ngi jàll njaboot la pas décès maternel ni door fay am fii rek direction bu hôpital Dalal Jàmm ak gynécologue bi nga xam ne moo doon suivre euh, femme bi euh, décédé foofule ak euh, doomam di décès boo xam ne nii métti na torop di si masawu ay mbokkam waaye di remercier ak féliciter ki nga xam ne moo di Théodore Semedo il fait un travail de pro dem ba hôpital Dalal Jàmm def le constat xool ba baax a baax les éléments ba pare ñëw daal ñu koy expliquer détaillé ñu ko ngir ñu mën ko étaler si plateau bi la dernière information peut-être boo xam ne mën nañ ko waxtaanee mooy ne Gambie ak Sénégal bu yees di euh, amal ay distribution de mille daa prochainement ndax jàpp nañ ne li nga xam ne moom mooy di paludisme dañoo doon xeex Covid bi ba fàtte ne paludisme mu ngi def ñombee ndax ci fàttali rek euh, le 25 euh, mars bi passé lañ doon màggal ci àdduna wërngal këpp li nga xam ne moom moo di jàngoroy paludisme ki nga xam ne moom moo di Doudou Sène di coordonnateur bu programme de lutte contre le palu daal di xam le ne que fii ci réew Sénégal dañu nemmee ko ne at jàpp at ci 2022 y a eu beaucoup trop de cas de paludisme ñu fàtte palu di xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi di Covid 19. ñoom nag nee nañu am nañu ab lëkkaloo gu ñu amal Abdoulaye Diouf Sarr ak ki nga xam ne moom moo di naataangoom bi nekkee ca diwaanu Gambie ñu signé ab partenariat ngir mën a xoolaat nes def ba daal di éliminer définitivement le paludisme d'ici 2030. Mhm. c'est l'actualité phare de la santé ci euh, semaine bi ñu génn wala ci weer. très triste même très triste très triste. voilà voilà vraiment. Euh, déli la tey. wala euh, teg sa bakkan ci xottu. Mhm. nekk en état. nekk en état mhm. mu mhm. nekk lu doy waar ko man man man damay euh, de manière générale damay euh, kii bi affaire parce que problème bi nañu waxante dëgg maanaam politique santé wu Sénégal am na problème. qu'on se la vérité. ak tous les moyens yi ñu ciy def. bu ñu nee budget bi ñu ne temps. jël nañ ci temps dugal nañ ci. 233 milliards de nos francs. voilà budget bu bu mag a mag la ministère de la santé am. tu as vu et que aujourd'hui ngay gis loo xam ne. te moins de 20 milliards pour les rénovations des hôpitaux. c'est du jamais vu. moins de 20 milliards xam nga xam euh, nga euh, euh, premièrement infrastructure hospitalière yi déjà. Mhm. foofu le problème njëkk a am. Mhm. da dem gis ay hôpitaux. Mhm. ñoo xam ne boo fa duggee da ngay ne yii sax moo ko tane fii Sénégal léegi nit ñi daw nañu euh, maanaam euh, euh, maanaam les hôpitaux publics di dem ci clinique yi te mais mais mais mais dëgg dëgg baadoolo amuñu amuñu pour dem clinique clinique boo fa demee rek consultation rek mm. léegi ay vingt cinq la vingt cinq mille sax voilà voilà dix moo gën a ndaw mm-hmm. mais dix mille francs boo ko bëggee laaj ab baadoolo ci consultation kese. waaw ci consultation. ba pare ordonnance ñëwagul. ñëwagul IRM ñëwagul. ñëwagul analyse waaye yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp ñëwagul loolu yëpp boo ko bëggee boole rek. Mhm. non sincèrement qu'on se dise la vérité soit xam nga dëkk boo bëggee dëkk bu dëgër na ñëpp euh, am wër gu yaram. Mhm. buñ ko amee dëkk bi dox. waaye ku amul niveau gu xam looy tal lan ngay tal. wax dëgg yàlla. mais c' est ça aujourd'hui le problème. le problème se situe à ce niveau. parce que xoolal depuis euh, euh, kii xoolal da xoolal euh, procès bi ñu def ci biir semaine bii. Mhm. mooy li xewoon fii Nabil Choucair xaw ma. Mhm. moom mooy kii boobu kii boobu jëloon kii pour mu jël ay ay ay ay ñu am doole pour bés femme bi. ah pour mu mun a am doom. ah mais xoolal ma loolu. mais non dafa am am spécialiste loolu. Mhm. mais du ay du du du ay punkal ñoo ñëw di bës ab biir. loolu fu mu amee ci ban monde la amee. Sénégal la amee mm. donc c' ça le problème. le problème mu ngi nekk foofu tey jii. il ne s'agit pas seulement de limoger. voilà euh, wala di di euh, teg sage-femme xëy na lépp seen doon. dama lay wax benn affaire. le problème est beaucoup plus profond. voilà très bien. ay jël di tëj ay Foussat Fama. Mhm. di naan ministre bi dàq leen ak ay nangam. le problème c'est pas ça c'est la politique gouvernementale. Mhm. foofu le problème bi nekk ñoom ñoo war a xam. Mhm. parce que tappale goobu ñuy def. moom mooy tax nit ñi ñuy feebar di am problème. léegi kenn wëratul. kenn wëratul mais xamatoo foo jël nit ci mënatul ñu def hôpital parce que dafa cher. man dem naa ci ay dëkk yoo xam ne. caution sax au nom de Dieu man dem naa ci dëkk yoo xam ne sincèrement. Mhm. dëkk yoo xam ne man Sénégal dëgg dëgg moo leen njëkk am euh, indépendance dëkk mais dëkk yooyu boo feebaree soo feebaree ñu assurance boo ko ñëwee ca buntu ba lañ lay jëlee dañ lay këf. dañ xoolal non assistance bi ca buntu ba oto ba buy taxaw ñu këf la. gine gi. Mhm. Oh, on waaw dañ lay këf jël la dugal la. balaa ñu lay laaj mais fii dañ lay laaj fay. ay eh, demal fayi fële. yaa ngi wax waxu clinique mais Aïcha elle peut elle peut témoigner certainement gis nga clinique pour nga dem fa sax léegi accoucher voie normale c'est tout un problème. Mhm. ñoom ñooy préférer tey opérer la. xëy na parce que somme bi ngay fay. dina leen mën a arranger. Mhm. parce que si lañ war a fay seen loyer. alors que mën nga accoucher voie normale. mais dañ lay andil ay problème tey opérer la. je pense que nekk na beneen problème bu nga xam ne war nañ ko soulever fii au Sénégal. normalement dinaa euh, la ñuy def pour pour opérer